amati mbégteeg bànneex si topp gee ñuy topp dikk ak rek amala waxtaan si kaddu yi nga xamante ne si ne rek daati na fi jëkk ki fi nekkoon ancien président di président Macky Sall daati yëkkati kàddu jëmale ko rek si nguur gu bees gi yëkkati kaddu rek jëmale ko si ñoom si li nga xamante ne si ne jamono ji noonu la ñu nekkee ak moom rek la mu bàyyee woon réew mi ndaxte nag moom jàpp na ne réew mi si ak daal daal la ko bàyyee woon ak justice bu normal noonu la ko bàyyoon waaye jamono ji rek moom na mu gisee réew mi jamono ji rek moom bu ko si neutre rek dafay mel ne de si euh, nekkul lu xamante ne si lu gën lay doon ndaxte nag mënoon na ko daal di toog si kawam rek lijjanti li nga xamante ne si rek moo day affaire ak waaye nag moom jàpp na na loole waru ko te du ko def benn yoon looloo tax rek mu yëkkati si kàddu wax na rek ñi fi nekk nañu xoolaat bu baax a baax rek li nga xamante ne si ne jamono ji la moo di seen taxawaay ndax jamono ji dafa mel ne sax dañuy daal di dund li nga xamante ne si ne moo di ak moom kooku di Macky Sall xam la loo mel noonu si ñi nga xamante ne si na ñoo fi nekk jamono ji si nguur gu bees gi naka si noonee noonu la ñuy wëy am nag li nga xamante ne si ne ñoo di opposition bi jamono jii ñuy amal li nga xam ne moo di seen i campagne élection législative ba tax na rek ñoom ña ngay yëkkatee kàddu saa su ne jëmale ko si askan wi di sàkk si ñoom rek ñu daal leen di wateel ba tax na ñoom ña ngay xamle na rek ñu mu doon ñooña di coalition sàmm sa kàddu ñu ne rek saa bu leen joxe majorité foofee rek sa assemblée nationale danañ euh, criminaliser rek li xamante ne si moo di euh, borom ñaari tur yi ñooñu di opposition bi njiit la di seen liste mi la muy jaas moom nekk sa njit la ak ña nga xamante ne seen noonu la si àndal di kooke di Bougane Gueye Dany Anta Babacar Ngom ñoon ñëpp rek Papa Djibril Fall ñoom rek jamono ji lañu bëgg moo di ab majorité bu day bu ko amee rek danañ criminaliser li nga xamante ne si na moo di euh, ñaari borom tur yi daan ko criminaliser foofe sa Assemblée nationale ba tax na rek saa su ne ñi génn di àddu bëgg rek di wax ak population bi ñu jox leen li nga xamante ne si na moo di euh, de Babacar Ngom muy xamle ne sax moom saa bu leen joxe timit la nga xamante ne si na moo di majorité foofe sa Assemblée nationale danañ criminaliser la nga xam ne moom moo a a man fa criminaliser li nga xamante si na moo di wàllum góor jigéen kon nag ñoo ko gisandoo noonu si campagne la législative